بسم الله الرحمن الرحيم mbokki téléspectateur fii fu jotal xibaar ñu ngi leen di nuyu ci façon di ko be coloré gi seen émission ëttu diine ji comme niñ ko baaxoo di ko defee chaque aljuma saa su nekk rek ñu ci ànd ak muxaddam oustaz Mademba Kairé ci Koungheul kon su ko defee rek oustaz Mademba dañ lay bàyyi nga nuyu mbokki téléspectateur yi ñuy seqal asalaamaaleykum wa rahmatullah mu ngi nuyu bokk jullit yi ak bokki taalibe yi rawatina bokki ma Firi Infos yëpp ñu ngi leen di ziar di ziar waa àddina wër këpp ñi seetaan ci Sénégal ak biti réew ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mu ngoog jaajëf saas loolu am na solo tey nag ñu war a waxtaanee ñeenti pàcc yi première pàcc bi ci nekk mooy lan mooy julli deuxième eh, pàcc bi nara tam lan mooy sikar troisième pàcc bi war a waxtaanee naka la nit di def ba dimbale yàlla ñeenteelu pàcc bi di bu waral yonent bi ràññaanam waaye nag question boobu dafa lambaale ñaari question la maanaam lan moo waral yonent bi ràññaan ak lan mooy ràññaan ka kon oustaz su ko defee dañuy ñëw ci première question bi di lan mooy julli tabarakallahu Thierno jërëjëf jazakallah xayran laaj bi am na solo tabarakallah ndax euh, nañ ko def ju ne nañ ko waxtaanee moo wala njàkk julli yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ñu jàngal ne asalaatu imaadu diin julli mooy keneen diina man aqaamaha faqat aqaama diin wa man haddamaha faqat haddama diin julli mooy keneen diina maanaam moo taxawal diina ku ko taxawal taxawal nga diina waaye ku màbb màbb nga diina kon julli moom mooy lan asalaatu buñ demee ci luxa luxa mooy làkk mooy luy firi jox ko jokkoo mooy julli nit ki nag ci julli googu kan la war a jokkoo boroomam kon boroomam rek la war a jokkoo maanaam ci julli mu mel ni nag julli am na nga jàpp boo jàppoo ba pare nga ñëw ci si ngay jullee benn sa jaada bi wala nga def ci jàkk té li gën moy nga dem ci jàkka ja mbolo euh nga xam def sa takbir muy tabaru xarmal jang faatiha jàng saar Rukun, sujudi. maanaam rukun? bu ne ñaar lay doon da ngay rukun sigi legi do dem sujud sujootaat tok kon julli gi daanaka boo seetloo tu ben rakk ndax benn rakk boobu moom day baam boo doon julli fukki eh, julli yi ak juróom-ñaar muy suba tisbaar takkusaan timis gexe yëpp fukk la ak juróom-ñaar maanaam ci rakk kon da ngay gis ne benn rakk bi rek moom ngay baam benn rakk boobu moom ngay bamp rek di ko bamp di ko bamp ba mu nekk fukki rakk ak juróom-ñaar ci bés bi kon loolu mën na xam ndax def loo xam ne xamoo ko ñaar rek mën na ci tekk nit benn nga yokk ci loo xam ne euh, bokk ci wala nga wàññi ci loo xam ne ci la bokkoon kon julli moo taxawal diina ku ko taxawal taxawal nga diina waaye ku ko màbb màbb nga diina léegi nag kon bi mu nee baax akbar li xam nga li xam ci boppam maqaama la ab maqaama la bo xamne taxawlu way la pour dom adam bi gëstu makam bu bu ban makam def sa kabaru xarmal ne takbir allahu akbar maqaama la taxaway la bo xamne dom adam bi dafa wara a gëstu taxawaay bu ban taxaway la ban makam la rukon ci bopam makam la dom adam bi ko rek gëstu bi mu rukon ban la tok ci maanaam Sujud ci boppam maqaama mo do ma dama du war na geus parce que kat ci ne lo waaye ne munu mako xam waye man sa telephone bu mom lolé rek man nga ko ci lijeenti kon lo waay mënta ta lijeenti man ba xam ko fi ne man nañoo ñoo ne am parce que moy yëpp am nañ sujjóot bi nga sujjóot maqaama la waaye tok bi nga tok maqaama la lu ci nek nak lu doom aadama de ba xam lolou lan djublu way xana duul ne da ngay ñëw rek taxaw ne allahu akbar sëgg gi toog dégg nga pare sujjóot ne asalaamaaleykum rek dem waaye war nga xam nag li ngay def noonu lan la lenn ci nekk ci ban maqaama mën ci la taxaw julli gi tuunag boo gisee gitu, eh. sant alquran ne eh, la in sakatum la asidanakum su ngeen ma santee ma dooli leen eh. kon boo seetloo julli gi tuu tuu tuu alhamdu moom la mobil aadama bi liggéey foofu ñu ne di ñeent ah ciarno nolol nak mom ñun wéji nañ ko du ñeent juróom te juróom la parce que julli juróom mo am mën ci julli suba la tak san timis bu jeexee loolu kay d'accord nga ne mom juróom la waye batu alhamdu lu nit jàngadi jàngadi war nga xam harf lif la lam denga halong mi miim muy alhamdu ñu ne xaji cent yi ñeent mais la parce que xaraf yooyu juromi xaraf du ñenti araf waye juromi xaraf kon julli gi tuhid nak alhamdu mom ngay liggey parce que da ngay taxaw ci taxaway da ngay taxaw na ciad taxaw ci liif wala det bo taxawé jang li ngay jang man ba paré da nga dem nga rukoon ji japp ci sa omi bo japp ci sa omi nekul ne da ngay continuer waat de da ngay siggi waat kon sigg nga mën a ci laam bi taxaw nga ci liif bi sëgg ci xàllonk bi sigg ci beneen laam bi muy ñetti xarab yi nga su jóoti mën a ca miim ba booy toog mën a ci deel bi ci ngay toog muy alhamdu ñu ne xaaji ñeent waaye nag juróom ndax am na benn liif boo xam ne moo bereeku ndale ba bereeku noona moo xenu mooy li nga xam ne mooy julli ci boppam ñu ne nag alquran ne inna salaata tanaa anil fahsaa'i wal munkari wala sikirillaa wala zikrullaahi ci boppam dana la moom tere lu bon li nga xam ne moom nga daan xam nga loolu mooy lan ci yar ci loolu soxna si loolu mooy soo mokkee ci jàkka ji soo mokkee ci jàkka ji da nga rus taxaw di jëw nit la bett soo ko ci jàkk ji dëgëru sa taxaw fu ñuy bëlotee wala fu ñuy tamee wala fu ñuy diru ba moo ci jàkk ji dëgëru sa taxaw ak soxna soo xam ne takkoo ko ngeen taxaw ci mbedd di wax naka surul noonu kon inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkari julli dañ la tere boo moo ci jàkk ji lool lool lool lool dina am yoo xam ne wax dëgg yàlla ay jëf la yoo xam ne rasaayil la maanaam yu yu toroxlu la yu suufee suufee suufee doon nangu mukk yooyu doomu adama di la ko sekkee wala ngay def maanaam lu mel nii léegi nag fi ngay xamee ne li ngay julli yow yàlla d'accord na ak yow mooy dafay dind ci yow loolu dafay dindi ci yow mboolem tuufi doon woo xam nit mu koy def mu nekk lu bon julli loolu daf ko war a dindi ci yow su fekkee nag yaa ngi julli fanweeri at wala ñeent fukki at te caay-caay goo daan def tey boo jekkoo caay-caay ga gën ko defaat kon yow julli moom jëriñul la dara. yow daal danga fekk gars yi di def rek yow it nga ànd ak ñoom di su boxloo di def waaye nag li ngay def moom jariñu la tus féeg nag gisoo ne sa julli gi ngay julli fanqal na la mbooleem loo xam ne lu ñaaw loo xam ne loo daan def la fanqal na la sàcc la jëw fanqal la rambaaj fanqal la daane mooy comme def ak yëfi caay-caay yooyu façon yooyu yëpp julli fanqal na la ko ba mu jeex tàkk baxal xel na kon sa julli gi fi ne li ngay ut ci yàlla ci sa julli gi am nga mais en tant que yaa ngi julli te yooyu moom fanqalut na ko dindiwut ko ci yow kon sa julli gi moom jëriñu la ndax kon muy jullikat ak jullit maanaam du benn kon ak jullit du moom da nga gis ni julli rek yow waaye nag daf la war li nga xam ne loolu mooy li nga xam ne mooy te ci boppam moo taxawal diina boo ko taxawalee taxawal nga diina boo mu ngi sa benn rakk bi mbollem looy ut man ci xeetu jaamu yalla mu ci sa ben rakk boobu sa rakk bi nag des na yow nga xam ko wala ga ñak ko xam waye boko xamoon jëriñu xam jëriñu mu fa amna solo mo ngoog ko amna solo mbokki téléspectateur yi julli mu ngi nonu euh, ñu ñëwaat rek ci benen fonk bi moy lan moy sikar ndax bëri na ci ñoo dañuy sikar sikar te xamul lan moy sikar lan mooy siikar tabarkàlla ceerno ma sha allah zikru biñ ne inna salaata tanhaa anil fahsaa'i wal munkari lañ ca teg mooy wala sikrullahi akbar julli dina la fanqal comme yi ma waxoon yooyu yu ñaaw yu bon yooyu mu tekki ne sikar ci yàlla moo gën a màgg ci yàlla moo gën a ma ñëw andil la waxu yaxya bul muas yaxya boroom xam-xam la sufyaan la mu ne azikru akbaru min aljanna sikar ñu ne waaw mu ne moo gën a màgg aljanna aljana ji ngay deg te bëgg ko lool te xamna yow soxla nga aljana lool wax deug yalla tabarkal ñun ñep soxla nañ waye nak mom daf ne zikkar ci bopam mo gëna mag aljana ñu ko ah, kon sikkar for na di yahya mu ne waw li anna fi sikri ridaullahi ci sikkar bi ngay def pour joko ak sa borom fofu la manal yalla nek wa fil jannati ridaul habdi amna ci aljana pour ngeureumal jamm aljana bu la ci yàlla gërëmee yow yaay gërëm yàlla wala déet aljana moom bu la ci yàlla dugalee rek yow yaay mujj nga gërëm yàlla waaye sikkar nag boo koy def yàlla mooy dem ba yàgg mu gërëmal la boppam léegi nag fama ridaullahi fiika wa ridaul habd ilallah lan mooy fi mu ne yow sa ngërmaande lu xenu ci yàlla ak yàlla gërëm la lan moo ci gënal yow maanaam ceerno léegi su ma laaj ne la yow nga gërëm yàlla gërëm la lan moo la gënal waaw yàlla gërëm la parce que yàlla bu la gërëm fi mu toll nii ci ngërmaa ne loolu mu la gërëm dan gërëm na la maanaam ba pare te la joxaale nag daf lay gërëm maanaam ba pare ci ngërmaa ne ci biir ngërmaa ne ci lay dugalal su fekkee nag ne nga bàyyi xel de ñu bàyyi xel Yahya bu Mu'aas li wax bu baax baax a baax daf ne sikkar moo gën a màgg aljana ñu ne lu tax mu ne booy sikkar sikkar bi ngay sikkar ci la la yàlla moom di gërëm aljana nag bu la ko yàlla joxee yow yaay mujj nga gërëm yàlla kon nag fexeel yàlla mu gërëm li moom ak boppam ci sikar bi nga xam ne moom ngay def bu la ci xasee gërëm fii ne jeex na parce que ngërmaane moom lépp mën a xaj na ci dugg na ca kër gu rafet dugg na ca oto bu rafet dugg na ca lu nekk dugg na mën a ci ngërmaane li yàlla àjjana jurul jeex ba ilaa yomi ji dugg na ci ngërmaane li yàlla waaye nag su fekkee fi mu toll nii yow ah yow rek yaa gërëm yàlla manam bo joxe joxee nga gërëm ko waye nak yalla gërëm la mo ëpp doole fuf yow ya ngay gërëm yalla kon sikar mom moy li nga xamne mo gëna mag ci jaamu yalla bo xamne doom adam mo moo koy ndax julli dafa am waxtu or dafa am waxtu aj màkka dafa am waxtu joxe as dafa am waxtu sikar mom amul waxtu xiyaamal wa qoodan bo taxawé ak bo tuddé même bo tuddé wét wala nga tuddé jaxanaay sax mën nga sikkar kon loolu mooy li nga xam ne mooy eggali nit mën a ci waaw kon wa fi saalika fal yatanaafasil mutanaafisuun kuy xëccoo zikkar ba egg ci sa borom loola moom ngay xëccoo ji ndax loola mooy li nga xam ne yokkuteef fi foofu la nekk du tere nag kenn ku nekk ahkaam yi nga xam ne mooy ponk lislaam ponk lislaam xam nga juróom la da ne amul benn jëm rul yàlla yàlla rek kay yàlla ak yonent yàlla Muhammad moom la yónni taxawal julli joxe nat muram ko aj mak yi mom force la su fekke yang ci bir lislaam dang koy jëfandikoo waye nak jaamu yalla gi ñuy wax ci nag nak mo a na ko ci xéetu jaamu yalla bo xamni doom adama mu koy def kon loolu kuy xëccu ji bo defee li li ba paré nak ba xamné am nga ci mablax li mom yang ci tek sa tank di def mu julleeg or ak aj mak ak joxe asaka bu dégg bëccëg yaa ci légui nak la la war nak moy nga dem nak outi sikay def ndax eh, yonent bi waxoon na isa maratum bi riyaadil jënd fartangum qiila yaa rasulallah wa maa riyaadul ma jàmm faqaal xalqu zikri yonent bi noon na bu ngeen romb mbee tool yi dëri aljana yi na ngeen ci faal toolu dë dëru lu mel ni fu defar mu nekk toolu dëru bu rafet boo xam ne façon fur yi mu ne mu nga fa mu ne na ngeen ci faal ngeen jéem ci lekk ñu ne ko riyaadul janna tool dëru aljana boobu moom mooy la mu ne xalqu zikri mooy jébi sikar yi moy jiw yi nga xam dañ koy jëw di fa def la ilaha illallah wala ñu fa def allah allah loolu moy li nga xam moy mooy kon doyna rek ci yahya bu mu wax sufyan bu mag boobu amna solo mo solo mbokki téléspectateurs yi ba léegi rek dañu xuus ñëw ci troisième question bi moy naka la nit eh, di def ba dimbalé boromam naka la nit def ba dimbale boromam ceerno yalla naka la nit di def ba dimbalé dimbale alquran nag moo jàngale loolu alquran mu ne in tansurullaha mu jawab gina yang ne yansurkum wa yusabbit aqdam ku dimbalé yalla yalla dina la dimbale ba paré deugëral sa taxaway kon légui ku bëgg dimbalé yalla noy def ak fooy jaar ndax da ngay yegg ci asaman ci pour dimbalé yalla tek ay sel di yéeg di dem wala da ngay gas ci suuf ci nga dugg ci pour dimbalé yalla wala wala fan la yalla ne té boko bëgg dimbalé nokoy dimbalé al khalq alxalq fi yàlla fi ñoy yalla ci kaw suuf bindé fi la yalla am yalla bindé fi la am ci kaw suuf masaru yalla man ci kaw suuf bindé fi la bindé fi nak ñom ñoy portale yontu yalla muhammad ñoy ñim miim adam dénd miim deer légui nak ngay dimbalé yalla rombu nit do dimbalé yalla de déedéet moom munoo ko mom so foggé ne fi né bo jullé or aj makka joxé aska ya ngi dimbalé yalla sa jaamu yalla googu légui yow fan la ko yalla def te sax attention gi nga nit té mu ngi julli di julli ni nan allahu akbar ba ci alaykum mu assalamu alaykum ci biir li muy def mu yëg ne moom mooy jaamu yàlla bu deexee safara la jëm dégg nga wax bi ma baamuwaat ko feeg nit a ngi julli naan allahu akbar ba ci asalaamaaleykum mu ne asalaamaaleykum yëg ne moom mooy jaamu yàlla bu ci deexee safara kon nit ki lu mu a comprendre foofu ak mu war a yëg mooy yow xamoo kenn amul yow man xam sa jaam bi koy jaamu xam ñetti xam-xam mën naa yow ya nga xam ba pare reconnaître mën sax xam sa jaamu yalla gi xam taxawé ni yalla yi taxawé ni muy ñetti xam ko kon yalla du fa nekk da ngay dakk lepp yow amo sa jaamu gi am ana kan mo am yalla mom nak fan la nek ci sa jëm ji fan lay jaamoo bopam maanaam ci yow moy jaamu bopam ci yow ndax wóora na ni ruuxu gi lay doxal bu génnee mom nga ne këndal daan xam nga ne ko loolu moom leer na ko nek xam nga ne sa sari li koy doxal ndox mi li koy doxal yuqu gi yuur gi lépp li koy doxal xam nga ne loolu duur yow war nga xam ne yàlla yàlla moom di doxal loolu nag moom mooy du boppam ci yow day jaamu boppam maanaam ci yow sufiyanke aarif xamkatu yàlla bëggkatu yàlla foofu la war a yegg maanaam ci yàlla ba nga xam ne booy julli yow yëgoo ne julli gi fi nii moom moo ci dara amoo ci dara yàlla ci boppam mooy jaamu boppam waaye sa biir jëmm ji nag ci lay jaamu boppam ndax amul def-def boo xam ne fi mu toll ne yàlla moom moo koy def léegi nag kon dimbale yàlla mooy nga dimbale doomu yàlla bindee fi ñooy njabootu yàlla ci kaw yàlla góob nag wax dëgg yàlla ñaata ñaata nit ñoo xam ne ñuy xëy di souffrir lu lekk amuñ ko ñu ngi war a dépense nga rënk ay milliards ni milliards toog ak ni bëri ah. nga rënk ci lu mat juróom wala juróom-benn di xoolal ay nit ñoo xam ne wóodale ne kii boo xëyee journée bi nga xam ne moom lay daw maanaam mutu ko dépense moom njabootam mu ngi sonn lool si biir lool yëre yum sol amu lu mu lekk amu lu mu naan amu facture courant mu ngi ko tëdd fu mu toll mu ngi taña di dugg ci lu ne sa xol bi ñëwituwut ci yàlla mukk mukk mukk nga jël benn un million wala trois millions dimbalee ko ko sax mu am ci fond boo xam ne mën na ci jàpp pour liggéey waaye yow nag boo ne nag yaa ngi dimbale yàlla yow kon nag yaa xeex yàlla ñooñu yàlla yi fii Sénégal gii li fi li fi nekk ci ay récence ñi nga xam ne maanaam ay borom yi am am lañ kenn ku nekk fi ne bu gestu woon rek ñi nga xam ne fi mu toll ñoo ko jege ci ak bokk ndax al aqrabu awla mbay sa weytaan mm-hmm. konoon coono jeexital wala déet kon nag kuy dimbale yàlla doomu aadama moom ngay dimbale Abdul Xaadir Jilaani dafa wax mu ne bi ma seetloo maanaam gannaaw boo xamee ne fi mu ne ahkaami sariya yi romb na mooy li ma wax bi léegi war a mu xam ne réyoon ni ak jaamu yàlla yàlla lekkut ko naanu ko yóbbu ko fenn defewu ko dara yàlla moom nee na addina bi yëpp buñ àndoon fi mu toll nii da ko jaamu yokku ci ak nguuram dara addina bi buñ àndoon da ko mooy wàññiwut ci ak dara du ko teree da yàlla du ko tere li mu bëgg a def man mu def kon ku bëgg dimbale yàlla ci nga koy dimbalee mooy ci doomu aadama soo dimbalee ci doomu aadama yi rek yàlla moom moo lay dimbale ba pare dëgër sa taxaw waxin la mën a ci yàlla jamono boo dajalee benn jullit yàlla njàqare yowmal xiyaam bi dana la ko effacé yàlla kon day seet mën a ci doomu aadama bi am am bi mu ko jox ci lan la koy dépensé ndax da koy dimbalee jaamu yàlla yow la déet soo ko dimbalee jaamu yàlla yi rek bàyyi la xel ne fi mu toll nii yow yaa ngi koy dimbale mën a ci ndax mbindee rek ñoom la fi yàlla yàlla amul keneen ci kaw suuf mu la am mbindee fi am nag sooy dimbale yàlla ci mbindee fi yooyu waaye loolu nag nga damay naaw dem feneen ak feneen ak nekk rek war na faa mën a dimbalee yàlla ndimbal loo xam ne lu leer loolu nag ci sa kaw mën ci lay sottee ko ndax doo defal yàlla mukk moom sa jëf jooju amul ci soxla pour yóbbu da koy sotti la mom yalla ci bopam day jëlaat jëf jooju jëf ju bax di nga jëf non soti la nan lañ koy dimbalé ak fan lañu jaar ba dimbalé ko ci doom adamay rek ci lañ mëna jaar dimbalé ko juma yang fi jakka yang fi de nga lu nekk mu ngi fi loolu yëpp ci social yalla pour dimbalé doom adam waye rawati na jëmmi doom aadama di mëna ci bopam nga jox ko mu lek jox ko mu naan wala nga jox ko yëre yo xam yu sol la loolu moy li nga xam moy dimbalé yalla yàlla koy def nak def ko ci fi nga xam mëna maanaam fi la ware bul fekk loo xam ne nag loolu jàll ba mu rëy li ngay jëlaat beneen jàll ci sotti da ngay dem foofu xam ne dara nekk fa nga dimbale kooku ba mu nekk fi mu toll nii dara loolu mooy yàlla waaye dimbale yàlla nag nee def da ngay jaaree feneen nag amulul mën a ci kaw la bindee fi ñooy njaboot yàlla waaw léegi nag yow ceerno ah ñu bokk nekk maanaam ci kër a ah yow sa kër ma loose ci jamono bu ma rek yëkkati xaalis ak teraanga Eh, bongo indi ay mango fruit fa soo lu nekk ma indi sottil njaboot di indi xaalis di leen may chaque jour su ma xëyee su ma ñëwee def noonu waaw léegi yow ndax euh, du yàgg-yàgg ba nga bëgg ma ma bëgg parce que li tax mooy njaboot gi li ma leen defal doomi yow njaboot gi man sax njaboot ne li may def ci ñoom yow yaa ko waroon a def ci ñoom mais jël teraanga ju bëri da ko sotti ci ñoom bu yàggee rek nga bëgg ak ma xaytoo nag kon kenn ku nekk dafa war a waaye dugul nag leneen ak leneen ak leneen kon dimbale yàlla mooy loolu mais dimbale yàlla benn laaj ndaw hmm. mooy ñi koy faral di def di ci boole gis hmm. comme di ko def ba pare di ci gis tan hmm. ndax loolu amul ay kii waaw gis de moom maanaam baaxut loolu la ñuy wax arriya mooy gis ah nit nag de wax dëgg yàlla li ngay jël di jox mën doom adam dafa wara nek di lo xamne ne du nek lo xamne ne lu ñuy wane la ci doom adam yi ñepp ñu and ak moom gis ko euh, bu fekke dal jaamu yalla la da ngay jël la ngay jël muy mablax ba nga dimbalé ko nit ki té bokay dimbalé yalla rek mom wax amna yit nak façon dimbalé yo est-ce que du mané ki ñi dimbalé bëgg ñu dimbalé ko am na yenn façon dimbal yoo xam ne ki ñuy dimbale su ma ñëwee yow ne la Thierno dama bëgg maanaam nga dimbale ma te yàlla tax yaakaar naa boo amee da ngay jël rek nga dimbale ma man te yàlla mais am na noonu nag maanaam su fa jaaree ba ma dikk ci yow est ce que yow it fi soo ma ci dimbale est ce que nii loolu dina nekk loo xam ne looy nëbb la maanaam yooyu yëpp dégg man mën a xel léegi su boobaa ñun ñaar kenn ku nekk fii ne am na lu muy liggéey mën a ci morom amna na lu ma la bëgg dimbalé yokal yokkal la ko waaye am na bëgg yokal kon yoyé mom yalla mom mo xam xam naa daal gis den mom nekkut lo xam ne lu baax téré mom duko mësa daganal ba ila yow mi diin ndax fimni ni tay gis nga yëri bi dafa wax né bo démé ba nga xam ne yaa joxé joxe joxe xam la ngay koy dimbalee nit man ta yalla tax ji nga sa loxo jor bi càmmooy bi war a koo yëg problème am ko de waaw dégg-dégg bi parce que ñaari loxo yii ndax yëg-yëg am na fi fi ne man yow boo ñëwoon di ma dimbale jël sa loxo ndeyjoor jël paquet bi un di ma ko jox nii wala deux millions wala milliards yi ma leen doon ñaan sax ngeen am ci tabarkal léegi ba yëkkati man a dama jox est-ce que loxo bii moom am na yëg amul yëg-yëg loolu doomu aadama daf ci war a déggee eh, imam Pire Bari saay bi fay jël ak Eh, tabarkal la eh, muy jàngal addis boobu maanaam léegi tey gis nga nit boo ñëwee a si nit ne da nga koy dimbale nga gis ko mu ci benn terrain mu wóor la lim tiim nii wala ambulance bii muy def lii mu téye maanaam di ko jaay wóor na la ni lim ci am benn ay ay la fi per moom la téye wala mu téye ay pusa wala ay wëñ wala ay lim téye daal a rombut loxo wala ci saak su ndaw moom la koy def di ko jaay mu wóor la ni kii mënu ci am lu mu fayee lu yaas am ci lu mu joxe dépense am ci lu mu fajee ak njabootam loolu yow yaa koy xam ci sa bopp ne lii li mu téye nii motul loolu waa léegi soo ko bëgg a dimbale fi mu toll noo koy dimbale par exemple léegi ñëw nga ci jaaykatu ma téléphone bi pour léegi rek wan la ne la loxo bii di joxe loxo bii war koo yëg loolu du ñaari loxo yi loolu la cax la dañ la ko cax cax bi nag moom lay tekki léegi léegi loolu mooy su fekkee ne gis nga waa ji mu ngi jaay benn téléphone téléphone bi mu ne moom 5000 la koy jaay te xam nga ne yow 5000 bi la ko am nga laaj ko ne ko bi lu muy jar ci misaal rek mu la téléphone bi de 15000 laa koy jaaye yow wóorul la ne ma 4000 soo ko fayoon sax mu jaay la ko wala 5000 nga yëkkati 15000 boobu jox ko sans waxante. mu jël xaalis bi def ci poosam nga jël léegi téléphone bi dem léegi ki bi dem jox waa ji doon jaay téléphone bi 15000 bi waa ji bu demee tuuti rek day wax ne tey daje naa ak ngaaka waaw daje naa ak ngaaka parce que téléphone bi soo fayoon sax moom waxante wu sax moom waxante te moom xamoon ne waa ji da koy dimbalee te yàlla tax waaye dimbalee te yàlla tax nag bëggut moom moomu kiy joxe mooy ndeyjoor. waa ji nangu nag moom mooy càmmooñ borom téléphone bi jaay téléphone bi te ñàkk lool te fi ne téléphone bi la bëgg mu waroon ci benn cinq mille te am ci dina beneen dix ne dina moom day jàpp ne dañu ne ak ak ngaaka fekk waaja moom dafa yor xaalis bu bari bëgg koo dimbali ci situation bi nga xam ne ci la nekk waa nga xam ne moo ko dimbali noonu ba jënd téléphone bi ci quinze mille te war na ko jënd ci cinq mille kooku mooy ndey joor waa ji la jël mooy càmmooñ lëm ci yëpp waaw loolu nag bu ko defee nag gars yi di la kii naan la loxo ndeyjoor bi loxo jàmm yi wax yu ñàkk fayda yi nga xam ne kenn du ko dégg dafa am yenn xam-xam yoo xam ne kenn waru koo wax ci ay mbir parce que wax loolu du firi baaxul wax loo xam ne boo ko waxee buuba lay doon nga xam ne kenn mënu nga loolu mooy lan loolu baaxul xam nga ne loxo ndeyjoor bii ak loxo bii pour bii nii nangam nang loolu loolu du wax mais ñaar ñi nag la yunt bi man di jàngal loolu la ñuy joxee te yàlla tax kon wax nañ nag ñuy joxee kon kon te yàlla tax nonu mom koko def ku ne mom dara japp ne daje ak ngaka mom ba di déwén bu la gisit mom daje naag rek ko xam ne lu ne moom nax na te fekk yow liñ ci djublu moy dimbalé yalla waye dimbalé ko situation bi nga xam ci la nek li moy dimbalé yàlla. solo bu ko dimbalé yalla mu ngi non ñu ñew ci ñeenteelu pàcc bi di euh, déggoon na ne sang bu sell bi da doon rañan euh, lu wara rañan boobu ak manam lan rañan ma sha allah Thierno li nga laaj am solo tabarakallah rañaan alxuraan jàngal na ci parce que alxuraan mooy teeseekaay bi mooy àtteekaay bi am na ñu bëri nag ndeysaan tabarkàlla buñ déggee rañaan yonent bi rañaan biir bi it yonent yàlla maam dañuy jàpp ne yonent bi daa rañaan déedéet yonent bi rañaanut yàlla moo rañaanee ci moom yàlla moom moo rañaanee ci yonent bi parce que nañ indi alxuraan rek buñ indi alxuraan alxuraan wàcc àtte Subhanallah, si sell ñeel na borom bi nga xamne asra mo rañane bi xab ci jamm bi asra rañane na lay firi waye sara moy firi rañan na sara moy firi rañan bu fekk ñu di mo mo rañan dañ nan sara waye asra rañane na sel ñeexal na borom bi nga xamne te moy yalla asra mo rañane ci kan bi xab ci jamm bi lay la dugg ne la masjidil haram ila masjidil aqsa ala si barak na xawla joge masjidul haram jom masjidul aqsa bi nga xamne ne dañoo barkeel li kon yonent bi yalla moo moo ko rañaanee mu doora man mën a wala deet waye yonent bi mom kenn kett kot kot kot kot fan lay dem fan lay dem yalla ko rañane lol moy li leer loolu la alquran jangale ci ki top ci nasu alquran mom alquran do la jang wa léegi nag lu waral loolu lu ko war parce que mbir mu nek suy am xana warna am lo xamne moko waral liko waral moy fal ardu iftaqarat ala samai ana afdalu milka li kaw husbu lil umam souf dal mom moo doon moo indi problème bi yëpp moom suuf moo problème parce que mom mo ne ko asaman yow dal man maa gën euh so demé ci euh, nakal la téré ba noorul anwaar bàyyi laa sa ayu sal mom mo liggéey misar bi way sama sëriñ Alaaji mom daw moo ko wuy moo ko wuy ban jeex léegi lam cey wax mom moy li eh maulana cheikh sey kebbi bu ñu daan jàngal toujours danañu wax ne def leen dànk ci rañaanu ke yonent bi ndax kat wax dëgg yàlla ruub kese mun ta wax jëmmi kese mun ta wax ruuhu ak jëmm ñooy ànd wax kon mbooleem bindkati isra wala mihraj képp ku ci bind ne ruuhu kese gi moo demoon di wax xam nga ne li nga waxam waxoo yaa ko gën a xam waaw ak koo mën a doon ak foo mën a jànge loolu amut nekkul dëgg ku ne jëmmi kese ji moom la moo demoon man a di wax am na ne jëmmi kese mun ta wax loolu du am ba ilaa mi di loolu li ñu gàtt gàtt xam-xam xam nga ruubu kese nga teg ko fële muy wax loolu amut jëmmi kese nga teg ko fële muy wax amut daan ci egsi kon nañ bàyyi xel ki ne nag ruubu gi ak jëmm ji ñoo àndoon kooku moom moo wax dëgg ki ne gi jëmm ji ñoo ànd kooku moom la wax am waaye ñi nga xam ne nag dañoo séparé ci lii moom ñooñu ñoom seen wax contre kenn du ko déglu ndax loolu am léegi nag suuf mu doon puugariwu ci kaw asamaan moo waral yunt bi nag jogee suuf léegi jëm asamaan puugariw bi mooy la ne ko asamaan yow maa la gën ndax xeet yi yëpp maa leen làkk làkk xeet yi maanaam xeetu yonte yàlla mamet man ci ci sama kaw man a ci lañ ne kon yow asamaan maa la gën asamaan ne ko déedéet gënoo yalla xana gisul ni ma taaralee ma ci jant bi ak dir ak weer yi suuf ni ko ah lolou dara maa la gën garab yeeg meññeef yeeg geej yeeg lepp man ci man la ne kon yow maa la gën asaman de ko déedéet gënuma ma ñaar daal ñorul xuloo seen xuloo bobu nak ci la rañal yent bi joxe léegi asaman de ko déedéet li ma yow man ma la gën sax xam nga tax la gën mu ne ko ah mu ne ko xam xala xamone baytul mahmud ci man la ne baytul mahmud ba bu ba chaque jour juróom ñaar fukki junne malaika ñukoy wër té duñ del ci man ba yowmal qiyam bat bu set rek chaque jour rek juróom ñaar fukki junne malaika ñoy ñew wër baytul mahmud del yeneen ñaar bu ñu ñu del wara ah baytul mahmud likoy wër ci malaika bari na té al malaikatu ajsamun mahlaqu min nur la yakuluna wala yasbuna wala yanamu ci émission passé won wo mu hibadu mukramun malaayika yi ay jaam lañ yoo xam ne dañuy bind duñ lekk duñ naan duñ dem mën a kama teral rek moo leen tax a jóg ah, ñoom ci seen bopp fi ñu toll dañoo tedd ba pare tey terale loolu moo leen tax a jóg juróom-ñaar fukk ne di ko wër bët bu set suuf ne ko ah lii lii li mbir daal mooy fii ya xayruhum gënal wa min nasan léegi fii ya nekk na ci man ci kaw suuf xayruhum ki gën ci yi ngay wax yëpp gënal wa min bi nit ak ginne yëpp la xam naa jinne nag moom problème jinne moom problème la moom waaw ko defee nag sama classe nga xam ne ndeysaan tabarkal la xam-xam dafay umb su ko defee ñu naan dañuy wane jinne jinne nangam jinne boo gisee nii laar na leen nam mel na koy dégg ak bu koy gis di ko seetaan ci yenn ci émission yi ñu naan jinne dugg na fii génn fa jinne Cerno moom laa gën a xam ci yow mi ma toogal nii billaahi lasi laa ilaaha moom laa gën a xam ci yow mi ma toog ma wax ni wala sal xamul kal parce que léegi nga maanaam xam-xam nee naa lim xamul du gis fi mu ne nii am na loo xam ne man laa romb fii nga jàkkaarloo ak moom yaa ngi koy gis waaye da ngaa xamul li ngaa gis fi mu ne yow jinne ni mu koy gisee noonu mu koy gisee da nga koo xamul même soxna si mu ngi koy gis yow yaa ngi koy gis mais nag da nga loolu la buñ la ko xamalee nag nga xam ko moo tax ñu ne sax la faalam annahu laa ilaaha wastaxfir li sanbi ko li mu naa nit xam mooy tax dem bi waaye yooyu daanaka sax taxu ñoo jóg waaye dama la bëgg a wane rek ñi nga gis ñu ne dañ koy waxtaanee noonu te naan la bu defee nii bu taxawee tànk yi ne leen bopp ba ne leen nangam euh, déedéet loolu amul de <laughs> loolu amul de. da ngay ñu koy gis naa dafa ñàng ak dafa dégg nga. boo gisee jom nag ak a rafet ak a taaru baax ak a a dimbali waaw foofu laa ciy waaye daal ni ma koy gisee ni koy gisee waaye xamoo ko nag man nag dama koo ci génn kese lii dong la lii nag yiñ njëkk wax noonu yëpp naan la mën naa la ko indil fii bu kii ma teg ci table bi nii ak billaahi borom moo ko bëgg loolu xamul ah, romb nag mën naa di dem. di faj soxlaam di ko dox léegi nag yow des na ci yow rek nga bëgg ko maanaam gis léegi xam ne ko yaa ngi koy gis waaye xam nga ko ñëpp koy gis nag gone gu ndaw gi sax mu gis waaye nag da koo xam lii mooy li nga xam ne ko defee ne yi ñu la ci wax naan ñu wala boo boo gisee bii jëm bi nangam ak nangam eh, ay xay daal amu ci dara amu ci wallaay wax naa ci waaw léegi nag euh, ñu ngi ci Isra wal Mi'raj bi suuf ne ko. legui eh, dal ciow li man na jeex parce que man na àtte sama bop fi ya xay mom jinal momi nasam ki gën ci nit ak jinne man ci man la kon yow maa la gën mu ne koo mooy kan mu ne ko xayrul xalqi yent yalla moom nag lu yalla bind rek yent bi moo ci gën te yent bi moom ci ko suuf ci lay eh daagu asamaan nag sëgg ta ilahi rabbakal bakar sama borom yow yalla dal lottal nga ma ci delo ko parce que daal wax deug yalla suuf gañe na ma aw mënuma ko tontu ci ne am na ko tontu ah bim ne awma ma ko tontu nag wa ko asalu min safi li o hiya jibilan li sal xadami ci la yalla nak wax jibil ne ko nak deug deug nak ah, asamaan am na problème ak suuf ci sen corps à corps bu ñu def léegi nak dama bëgg nak nga wajal ndon màkk mu yónni yàlla mu fekk si ma mu ñew mën ci kaw asaman ah jibril départ bi mu départ pour ñëwal yonti yàlla Muhammad bay na safa marwatin la wax bay la yooyu mooy jàngale waaye bay la ñu mu ndaw waaye li tekki bi nag pour mu leer ma xam ko nga ne xam gi ma ko xamee ni ma gis noonu lay gis yi loolu moo la naa sa seen tebe te ci rajo yooyu ba ma jàkkaarloo ak moom xam ko comme li ma la xamee yow wala boog lu gën a leer noonu sax laa ko xam ne loolu mooy li am léegi nag bay na safa marwatin jibrilu ay xasan yi bi xilqi xaama saara min mu ne yonent yàlla Muhammad mu ne jibril moo ma fekk ci aw melokaan ne ma jogal wéq ma maa ngi tëdd ci diggante safa ak marwa diggante safa ak marwa loolu makat lam karam la nekk mu ne bi ma wéqee ne ma jogal anta tanam wala yanam khalifna fal basiyam sudal islam bil asli ya ngi nelaw waaye yàlla la wax jogal nga tak sa ndig fasina dem di yalla ji ak sa borom rañaan nga yéeme na de mu ne ko am ne ko waaw ak yonte bi mu ne man mu jox ci safa ak maro jibril ñu ne ko waqus burakan wahidan min duwariqiha kutu mustafa wa sayyidul umam demal aljana so demé burax ya fa al burax xam nga mom dafa rafet lol dafa taru lol ñu ne ko demal so demé al burax ya nga xamné ño fa nek nga jël ci al burax ñu indil ko yónni yàlla Muhammad ngir ngeen porto ci yow moom ngeen yalla ji ak man sa bopp jibril mu ne mu dem aljana bi mu demee mu fekk fa ben al burax bo xamné ñu ki sa ñu ñu ko jatt manam mu ngi sëgg mu ne ko fa ma tap ci mi salami loy doy ci métti boo xamné dafa la dal yow alburax bii aljana ni ni mu neexee nii nga tëdd fii sëgg rek mën a di jooy loolu jooy ci métti bu la dal mu ne ko mun fu arbaxeena sana sa métti isma xam ñeent fukki yoo xam ne dama dégg turu benn soppe benn dégg bi ma ko déggee lam axta ci la ndox mu sedd sax euh, xaw ma ci soxla sàkkaat yi am soxla ci lekk mu ne ko loolu nag pour la mu kooku dama koo sopp mu ne ko kan la mu ne ko bi ma déggee yonent yàlla Muhammad ak léegi sama xol bi dafa fees ba nga xam ne mënuma lekk mënuma naan Jibril moo ko wax ne ko fa tasul wasli bi nax sooki qaala lahu jihaasuhu bis fay jëti mi te eh, moo ne yow nag kon dinaa la ci soppi boobu nga xam ne moom ko sopp tey yow dinaa la ci yóbbu bàyyi alburaax yooyu yëpp te la fa fekk war naa man ñeent fukki junne alburaax ñu ngi sëgg waaye benn bat ba nga xam ne mu ngay jooy te sofel di jëm am ci yonent yàlla Muhammad moo tax mu nga jël ko yàlla ne ko wajal ko wajal ko ci tek nak ak laham ñu ne su ho bil marajina kon bu raax rafet na lool gën bi wurusu marjan lañ ko liggéey ak raaxu gën gannaaw bi mu ne yaan wurusu ne xeen lañ ko liggéey xay nu bi lañ ci def deng rijlu bi misk moom lañ ko liggéey wasar ju min nuri tek gi leer la yasri mi lan jëlan ngay dox kon comme wurusu ngalam kon alburax rafet na lool léegi nak jaa al buraaqu wa jibriilun yaquudu bihi foo doon a baxlin wa fawqal xomri in jisum ko ba El Hadj waaye suma sëriñ El Hadj nii la ko wéy léegi mu ne buraax baa ngi ñëw jibril la nga koy ommat yonent mu ne mu ngay jàkkaarloo mu ne fa doon moo yées baax la waaye nag moo gën a yëkkati ko mbaam nit du sami maanaam ci jëmm waaye taar ñu la wax nii ci gannaaw yépp façon wurus yooyu ñu ngi ko rangal alburax bi kon buraax rafet na lool benn borom xam-xam nak senegal Serigne Touba waxo na mu ne yowmal qiyam duma war war alburaax yonent bi war ñu portoo te buraax ben la te yonent bi dana war dana war te buraax ben de nga wax wa mu ne buraax ben la buraax mom ben la duma ko porto ak yonent bi te bi dana war te dana war te buraax ben wax la di wax la day wax kay Jamal berapa kamu xam-xam la wax lu am la waaye ci ko mën a dégg am na koo ko dégg waaye am ko mu mën ko dégg mën na xam tabarkal la léegi nag mu ne jaar buraako wa jiblum yaqulu fa doon a baax lin wa fawqal xam bi min bay mu ko ci Muhammad bi ñu nak. ah bi ne mu ngay laal al buraax buraax bi commencé di daw yonti bi nek la tanfir bul daw buraax bi tontu ko ne ko hatta tudda mi ne lii na ci xiyam bata nga ma garantie muccu ci safara ak mbugalam yowal qiyam da ngay garantie lolu njëkk ma door a mu ne ko fa kayfa tataafu naara saatal laza maxluqu jannatihi yan doo ni xam kan? yow aljana nga génnee foofu lañ la génnee bindee la fa tay kuñ bind ci aljana kay xam nga ne waratu sa ragal nañ lo xam ne mbugal la mu ne ko ah xaaroo ta manu kana min malaikatin wa kana ma aqsam anda dañ haro tak maro ndaysan sen jaamu yalla yeb pertement la legi parce que mujj nañ rek leen ba nga xamna dañ yaq legi dal lima meuna xam moy garantie ma aljanna garantie ma ne dina da do ma dora d'accord manal mustafa khubayla markabi fasara yasmahu man nadahu min kalim manal mustafa moy yuntu bi garantie na alquran legi na garantie na ko aljanna xubay la marka bi avant muy tëj ci kaw mu toog nag ci kaw alburax bi ànd ak jibril moo ko porté muy déglu nag lu koy woo mën a ci ay baat ñu ànd nag jëm malaul ahla biñ <laughs> déparé baytillah bi moom moom lañ wàcc masjidul aqsa foofu lañ wàcc fañ wàcc noonu nag baytullah bi boobu yonent bi nee na nasaltul xalqata bi ñu wàccee ci jéw bi rek laa yeew sama alburaax léegi nag ñetti téeméeri yonent yi ak fukk ak ñett ñëw mooy ulul mooy ñi nga xam ne yàlla daf leen jox garab xam nga anbiyaaw yi ñi ñëw ni téeméeri junne ak ñaar fukki ci seppi ñetti téeméer ak fukk ñett ñetti téeméer ak fukk ak ñoom ñooy ñi nga xam ne fi ne ñooy jiite ñooñu ji léegi nag ñooñu nag yonent yàlla moom moo leen jiite yonent ñi jiite leen ñaari rakk jiite leen ñaari rakk maanaam ci yu julli léegi nak buñ paré nak lay door a fi ñu jëm nag manam ci yalla jibril yontu yalla moom it alburaax burah gaaw na de yadaw xaasirahu fi muntahal basari yaddawa absaaruhu fi muntahal fahmi burah bi la gaaw gis nga bët bi manam fam dal fu xel ni xalaat bi foofu lay dal fu bët bi dal rek tank bi foofu lay dal kon dana gaaw de comme fa xel mi si bët bi foofu lay dal fu bët bi fi nii dal tànk bi foofu lay dal te kat diggante asamaan bi doxu asamaan bi nii ñu jàkkaarloo ak fii doxu juróomi téeméeri at ci waaye nag xam nga day gaaw parce que nag gaawaay bi waaye li ma la li ma lay nii yëpp xaaral ba ci cëppaandaw ja nga xam ne ah mbir mi mbiram ci la la laa waaja waxoon ci arab nag ma fi umur yi maa daa yóbba yëngu. am na ci yoo xam ne daal leeral ko moom yéeme na xaaral ba ca mu jëntal ah ñu ànd moom jibril yonent yàlla Muhammad naataa yamini yetan kasaa yasaar yetan kilaaxuma amilu ko am na lu koy woo ci ndeyjoor am na koy woo ci càmm kenn ku ci nekk li mu bëgg mooy yonent bi taxaw kenn ku ci nekk li bëgg rek mooy yonent bi mën a taxaw ndax bu taxawee rek fi mu toll nii bëgg maanaam fi mu ne ñi koy oo eh, lii yahood la lii nasaara ñi koy oo fi ne bëgguñ mu jàll ndax bu jàllee fi mu mission bi fi mu jàll ak it li muy ut ci yàlla mu am loolu lañ bañ léegi nag bu continuer moom moom ñu dem di bëtt kiiraay yi di bëtt asamaan yi di bëtt asamaan yi di a asamaan yi maanaam ci gàttal ba egg nag fi mu toll nii maanaam ci boppam maanaam ci gàttal rek mm-hmm. biñ bëtti asamaan yi nag ba yegg maanaam ci borom Ini bi mo ne qaratu asjudu dama rot sujudal yalla yalla ne ko déedéet fii amul sujud salto ta lajal rek ñu jox la lajal manam ñu jox la hmm te alquran mu ne ma kasabal fuadu maa raa ki bi ci rañaanam gis na yalla wala gisul yalla alquran ne ma kasabal fuadu maa raa lim gis du ko ba ho ngeen bëgg wéranté ngeen digga hala ma yara ci lu gis na ko moom tek na ko ba ngeen bëgg ci werante teg moom man ta nekk mu jégué yalla lool rot ni mu ngi sujjoon yalla ne ko déedéet bul sujjoon mu bëgg su summi ay dàll yalla ne ko déedéet bul summi say dal mu ne ko damay bañ nga wax la nga la nga wax ma la nga waxoon yónni yàlla Moussa parce que yalla musa Moussa eh, dang ko xam ko fakh la Nah layka ka sa ñaari dal yi mais ragal kan nak nga wax ma ah. la nga waxon musa mu ne ko déedéet xara xamu ne may bind musa yow ya tax ma naa ma ko waye maqam boba dal du fa dem de maqam dal du fa dem donte dal yi àgg na fa waye dal yi nak ah dal yi ah yow waye bu ko bëgg a rek ne ko sal tukta laajal maanaam ma jox la lo laaj rek ci gëni jox mu ne ko yow nag yàlla dama gis ne yow yow yow mii yow yàlla yaa jàpp yonent yàlla daawuda nooy loolu ko ay weñ ba weñ lu ko ci neex defar Suleymaan boo xam ne tabarkaal dafa nekkoon yonent ba pare nekk chef de l'état nekk buuru ñëpp yaa ko jox Moussa yaa ko defoon muy wax ak yow Isa yaa ko mayoon muy muy dekkal mën a ko dee di wax loo koo xam ne dafa muuma Isa tiim taan lu ne def na ko yonent bu ne mu tudd ko ne ko yaa ko mayoon nangam yaa ko mayoon nangam yonte bi ay yalla ne ko gis nga may yooyu yëpp mu ne ko ko yow yaa ko leke laqad akhastuka mahbubal ubayyin wa mursalan li jamihi khalqi wal nasami yaw ila japp ngay so xam nga ñooñu nak ne ki may ko naan ki may ko naan yaw nak yaay sama soppe yow laa sopp yow it laa yoni ci mbolem ñu kenn ku nek ci ben xet yoni kenn ku nek dafa am fu ko yoni waye yaw mom dama la yoni ci yep ci la la yoni te yow yaay soppe bi yàlla yótti yàlla rek la xam moom la xam ku pour mu gërëm la soo bëggee mu gërëm la laa fa ci yónti yàlla moom soo bëggee mu gërëm la rek noonu ngay def waaye boo tëbee yónti yàlla moom nanguloo ko ne da nga nangul yàlla yàlla bañ yàlla yónti yàlla moom moom la xam yónti nag dem ah ci lañ ko joxee nag eh, ci la ko ci la ko yàlla joxe juróom fukki julli ah julli yi bëri juróom fukki julli konoon ñun juróom fukki julli moom la ñuy julli léegi nag muy ñëw bu bu ba ñëw ba ci yunteel ak Moussa Moussa ne ko ah, ah mu ne ko ah sama xel wa de ñu ëppoon doole sa xel ci kattan te mënuñu woon lii rek tey ngaa soo ko ñaanee mu wàññil mu ñaanal yàlla yàlla wàññil ko juróom te buy wàññi bu du wàññi ñaar du wàññi par juróom lay wàññi ah, juróom ñu xam ne lu ci ne juróom xam ne lu ci ne de par juróom rek lay wàññi par juróom rek di ko wàññil par juróom bu bu ñëwee mu ne ko demal te ngaa dellu soo ko ñaanee moom mayaat la sa xëy di wax nu yónni mu demal mu wàññil ko juróom di ko wàññil par juróom Moussa moom moo toog ci ma bi waa Moussa moom foofu daañu fi laaj moom euh, jamono yooyu bi mu dekkee noonu di wax ak yonent yàlla moom ak ñetti téeméer yonent yi fukk ak ñett yéen yi jiite woon euh, julli jiite ci ñaari rakkaay yonent xam naa ne ñoom xanaa. Ah, dañoo deexaat de wala boog ñu ngi fi ba léegi su fekkee ñu ngi fi ba léegi am su fekkee maanaam dañoo deexaat ku leen rob ak ah, ku leen rob te jiite na yonent yi ñetti mbir ñetti mbir bi ak foog ñetti moom koy jàngale wala déet jiite na leen waaw gannaaw yi ak fukk ak ñett doole yéeg dem ci borom boromam yonent yooyee léegi ñoom dañ leen ee eh, seen bàmmeel ñu jox gannaaw mu ñëw mu jiite leen su fekkee dafay njiitee noonu yonent yooyu anam su fekkee nag ne dee leen maanaam faatuwaat ne ana ñan ñoo leen ak fu ñu leen rob loolu moom kanaan question la beneen beneen beneen la beneen mbir la boo xam ne lu doy waar ah yàlla day wax dëgg yàlla day mbir mi leer na de xanaa kay dafa am ci ñum leer waaye mbir moom leer mag ñi nag mag ñi suuf yaa ngi koy mag ñi maa suuf Seex Tijaan maasug Seex Umar Fuuti bi maasug Sëriñ Tuubaa bi maasug Baay Ñas bi maasug Imaam Kabir Wala bi maasug Mawlana Seex Seekeet bi maasug ba sug yank yooyu jeex ba yooyu ñoom ñoo xam man a xam-xamu ak histoire yonent bi naka la ñoo ñoo ko xam waaye comme mooy ñi sama bi nga xam ne bëgg rek nga yaakaar gudd ci tableau rek ak wàcc yi nga nangam ah, nangam ko xam wax dëgg yàlla loolu moy li nga xam moom nak xam nga ma ngi emoon ci mune yalla yalla ne ko yow la japp ngay soppi léegi ne yow la yónni ci mboolem xet mu wacc bu ci ñun yalla musa musa nak ne ko wañi loolu da ko wañi bu def juróomi jullu bam ne ko muhammad delul sa xeet yi mu ne ko ah rusna naa dal rusna dal la wax dëgg yalla ci yalla di wax ne ko mu kii ma xanaa musa bam ko waxe non ma na ba pare momi dal di dee wala mu ngi dund wala fekke mu ngi dund fan la nek bu fekke dafa dia xarit manam ana kan moo ko rafetlu wala déet. kay te nag lépp lu am la ay maqaama la yo xam yu am la legi nak du ci yonent bi nag pare juróomi julli yooyu moom la ñu wa waaye gis nga de bi moy dem moom nga jeli jëli julli du mu doon jeli julli xam nga gis nga julli xam ci kaw la ko jëlee maanaam ci yalla wacc ak mus dum ak ci musa musa ci maqaama mu koy wañu di ko wàññiloo ba mu juroomi juróomi julli juróomi yooyu mu andi ko. ah waaw xanaa jii di wutoon ne julli yi ñetti minutes yi ak fa ñett kon julli googa lu lu mu jàngoon ak julli julli googa moom naka la moom gannaaw moom julli lay julli yaa ngi julli julli ay yeneen di julli googa moom naka la ah léegi lu ci nekk doy na waar lool doy na waar gis nga Thierno man a xam-xam xam waaye nag eh, liñ ci wax lu tuuti liñ ci jàngale lu tuuti tuuti li ci des yépp mu rek mag ñi ñom ñoko ko yor mag amna ko nak bo boo ne mag ñi moom mu bénn mën a waye mag ñi de ñoko ko yor waaw mag ñi ñom ñoko ko yor ndax ñom ñoo mëna def muy nit muy nit nit feeg sa nit gi nité a la yalla sa nit gi moom jëriñagul la dara ibnu arabalaat bi la wax mu ne nit bu xamul yalla nit nit wori la nit nit wori moy nit nga nii way sa nit gi nité nit la dara nit moy dafa am lu nit ba di nit lola nak mo ngay gëstu leer googu noonu la ci islam leer bi ñu bo le ko yónni yàlla moom nga gëstu leer bi ba àndaale ca leer bi dañ ko tënk rek rañaan bi ndax jaar na ci Israël ñu gisoon garab sax ci digg bopp bi Mikaayil ñu gisoon muy natt lekk yi ak limi laaj Jibril Jibril di ko waxal safaraa nga ne le ajanaa nga ne yooyu yëpp dañ ko ndëxañ rek mën a ci biir ndax bañ émission bi fi mu toll nii mana minute yi dugg ci loo bin ne nag su noonu léegi nag bi ñëwee indi ñu fi mu toll julli julli julli julli yonte bi nak mom bimu mu mom moy mooy mu ne xaraaratul ma jan bi lam yab rat tàngoor nga xamne moy tangoro lal bimu mu te jibril yi ko ne ko jogal manam fimu mu ci diggante safa ak marwa tàngoor wu tàngoor wu mu ne dem na ba ñëw te seddu manam pous na makam yu yëpp pous na ko dox na ko def limi def lepp lepp lepp mom te ñewat mom te mu ne tàngoor yu mu tëdd yoon tàngoor yu set waaw kon foofu day dégg-déggu man ak calme bi wax dëgg yàlla gannaaw li fi ak li def tout bi nga xam benn minute boo ko jogee wala ñaari minute taxaw fële tàngoor yu fi mu toll waaye mu tàngoor yu mu ci lalam tàngoor bu sedd yonent bi lii mooy ak na dañu mooy ak doxam mën a ci yàlla su ko defee nag kenn ku ne la alquran wax ne subhana asra bi habdihi laylan min al masjidi haram ila masjidi aqsa allazi barakna hawlahu jam bu préparer pour dem ci borom yàlla yalla xawna ko moom itam pour mu ñew jaar ci yonent yàlla Muhammad jaar jam bu préparer pour dem ci yalla rek yalla xawna la yow itam pour léegi nga jima dem man sa borom xamna euh mini dafa melni mu ngi jeex su ko defee ñuy tagato Euh, di leen ñaanal yàlla waa Firi Infos yëpp ñu leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal yàlla nag ko defal leen mën a sutura defal leen yokkute may leen wërsëg bu naata naata naata naata may leen euh, ak yokkute ci zahir ak baatin waaye ni mu leen ko defalee mu defal ñu ko bi jaay leen sama ñu ngi faaral ñëpp di nuyu ñëpp di nuyu sëñ Filor ak euh, soxna si ngeen àndal ak seen DC seen ndaw la ñu koy ziar di la ziar yow Thierno di wax ne waa akam doomu aadama alhamdulilah rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi mbokki téléspectateurs yi jërë ngeen jëf émission bi kon fii lañ koy ndar keppee di leen di jox rendez-vous bu album incha allah jërë